tuuti commerce sama goro sama xarit sama sama ànd jàmm ànd nañ fu ne ànd mu soog ko sant sa soxla mu gàddu ci loolu laa ko ndax man yee naa ay quatre heures matin mu fajal ba sax gàmm bu jotee duma laaj sax ndax dañuy dem damay toog sama kër rek di xaar boutique bi bu heure jotee ay dix heures onze heures mu mu egg si fam ma ñu dem gàmmu gàmmu dëkk bi amul dëkk bu ñu gàmmu bi ma ko xamee ak tey ci activité yi muy sport muy culture muy religion def ci en tout cas dugal loo xam di jàppale nit képp ki nga xamante ne néew nga doole nga nekk ci ay jafe-jafe plupart temps boo rek sa aajo faju loolu moom mën naa ko témoigner dëkk yi nag aussi amul dëkk bi nga xamante xam xamul kaana même ci politique bi nga xamante ne ci boppam mu ngi ciy yëngatu bu moroom bi amee jafe pratiquement day mais bu bu rek ñëpp ak jeunesse bi aussi ñak na ndax lim leen di accompagner ci walu sport dafa dafa bëri di def ci dugal lo xam dugal ci énergie am en tout cas il se donnait à fond imam yeneen jaayante ak imam Tamba mu ngi yoon promet maa ngi ñëw mën leen jàppale rahim phase dogal lu boo jëlee aussi ci wàllum religion saay bu ñu ne affaire gàmmu la plupart du temps da ciy taxaw gàmmu bi soutenir ñu sur le plan matériel financier waxatuma aussi roi bi fi nekk sa majesté Sibylle Mbaye luñ koy jàppale aussi ci organisation ci lu dem ko bu loolu tamit aussi euh, vraiment lu jara wax la aujourd'hui euh, roi bi ci bopam yónnee na délégation bu takku pour ñëw jaale ñu au niveau de l'église catholique aussi c'est pareil bo jélé aujourd'hui curé bi ñëw na wax ñu action actions yu mu def fofu c'est des des toilettes yu mu def avec une bonne volonté donc yoy yëpp ku nek mu ngi témoigner donc tay jii kana ñakul parce que demna mais ñu mu doon defar ñoo ñak kon euh, pratiquement day c'est comme un

ñaanal naa ko yàlla na am jàmm yàlla lu mu am fii si àdduna yàlla na am lu ko raw ci àllaaxira loo rek laa ko ñaanal ku baax moo fi jóge ku xam mbokkam ku xam nit ku xam yàlla loolu laa mun a am li may seede si moom. Aminata Diallo laa fii Cadet Dóob de l'honorable Mamadou Kana Diallo qui rendu lam le dimanche. je ne saurais pas dire qui est exactement Kana Même la fille de Kana ne pourrait pas vous dire qui est exactement Kana Je ne peux rien dire à ce moment.